sax mu ne beroon nañ ko censuré ak léegi professeur Ousmane Baldé ak Abdou Diouf Diagne. sujet bi génn ba indi coow li lool bu nekk sujet bu nekkoon sujet de composition bu lycée Abdoulaye Sarr Sy en 2012 bu fa defoon waaye comme jàngalekat dafa bëri lu muy denc ñu amoon ci banque de données sujet bi nekk fa jamono yi mu waroon yónni nag sujet yi yëpp mu tolloon ci deux du matin xaaja guddi xëy na xel bi sonn na waaye loolu yëpp mënuñu wax ne loolooy ne rek ma ba bi ma doon yónni yeneen sujet yi sujet bi bëgguma woon xam ndax sujet bi bokk na ci wala bokkul ndaxte dama jàppoon rek man bi ma yónni sujet yu baax la sujet yi may waxtaanoon ba tombé d'accord ak sama collègue bi Guita Traoré ma jàppoon sujet yooyu laa yónni waaye bi xale yi demee nag ba toog di examen bi dikk ba xale yi pare ci lay rendre compte nag sujet bi ñu xale yi def kenn prévoir woon mu nekk ci sujet compose maanaam dafa bokkoon sax sujet yi ñu censuré woon waaye dañu nekkoon dem tuuti ci sujet boobu man Ousmane Baldé joxewu ma ko te xaraam desi jëluma benn décision intention joxe ko ki ko joxe woon 2012 dafa am dafa ñu ko joxoon mu bokk banque de données bi donc bi sujet bi génnee nag tudd nañ ci ñu bari tudd nañ ci ministère tudd nañ fi IA tudd nañ ci ñoo xam ne laalewuñu taxewuñu IA laalewul taxewu ci mi fi dama nekk technicien IA man ma def erreur boobu damay rek jéggalu ci Sénégalais yi ñaan Sénégalais yi ñaan yàlla yàlla jéggal ma sama excuse yi nag ma koy présenté ci Sénégal yépp ma koy ci ministre de nationale ak ñi fay liggéey yépp di ci baalu askanu Sénégal di ci baalu élèves yi di ci baalu mbooloom guide religieux bu nekk ci réew mi Euh, mu ngoog euh, professeur Ousmane Balde leer na nañu ne du tayeef du càkkuteef goo xamante ni tukkee na ci ñoom waaye njuumte ni mu ko waxee sujet bu nu beroon 2012 ak léegi euh, sërxalu ci ay leeralam ci sujet yooyee waral coow li mu cay jéggul moom professeur anglais bu ci tëngeej Ousmane Balde leneen ci xibaar ak RFM wàllu mbay mi soble si ak lu bari ci tonni soble yoo xamante ni ma nga des ca seen yoxo yi boroom abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne